ah mbokk yi bés baa ngi noonu la dimanche 7 novembre ca arène nationale Baba jaw ak waa Thiam production ñoo woote lamb ju mag ci diggante Quench bu Lansar ak double moteur bu Rëbës bu leen fàtte benn yoon ne lamb ji en direct lay doon pay per view en exclusivité ci seen affiche point com même boo nekkul Sénégal nekk ci bitim réew mën ngaa yónni sa xarit wala sa mbokk mu jëndal la sa code 1500 francs rek lay jar daal di la yónni war code bi ak foo mën a nekk ci àddina di nga ci mën a seetaan sa lamb pour nga jëndal ko ko nag yow ak sa Orange Money da ngay def dièse 144 dièse daal di bës 5 def étoile def 346 360 def étoile def 1500 daal di def dièse def ok après nga daal di dugal sa code secret ci noonu dinañu la yónnee benn SMS ak benn lien boo xamante ne ni boo ko bësee moo la yóbbu directement ca làmb bu fekkee ni danga ngaa bëgg jënd ak sa carte bancaire itam yomb na trop da ngay dem ci seen affiche point com nga daal di cliquer ci événement Quench ak double moteur après nga daal di bés connexion par mail ci noonu nga daal di dugg daal di topp instruction yi nga xamante ne ni ñu ngi la koy wax yëpp Momo ñooñu waa ñooñu waa kër fëgg waa Momo ñooñu ñooy waa kër Quench ñoom ñooy yeg si noonu mais buntu bi moom à chaque fois day bëri coow buntu bi saako yi bari na de benn saako ñaari butéel am na yeneen saako yu desaat Momo caatu fora ak i soom waa lan saar noonu di dugg waa kër Quench ñu ngi doog a yegg o oh, Père Max Mbargane a ngi ne ak waa këram yi ñooy gérer buntu bi noonu Père Max moo sol mbaxane bu weex bi noonu lii moom mënul ñàkk si làmb moom noo def mu ay nit ñu ëpp moom Kuba xanaa ma ko commerce nga yow da ngeen nuroo nee na magam la dañoo nuroo deret du fen yeneen i saakoo ngi noonu du jógaat lamb lépp tegtal la mu moom yaay seen père Max noonu ak Sakho mooy seen pappa nag Tarkinda yëpp mooy seen papa c'est le papa tarkindaa Tarkinda Tidiane Faye le professeur de l'Ansar cey lam moo neex Quench moo nekk ci oto bu noir bi wàccagul ba léegi bant bii moom lañuy ñuy écarté di la ko jàllale bant boobu lañu ñu naan moom mooy tekki fas yëpp boobu tijaan boobu tijaan fay yore entraînement ngay àndal nga ñëw ñi ñuy àndal yoo entraînement da nga leen di beddi da bëgg jël sa mbokk xam li naan ku ku ku falu rek indi say mbokk léegi da ngay dem jël say mbokk ñëw ñu bëgg dugg sa place su ñi doon entraîné ak yow day sotti. kon su may dugg si noonu dañ ko boot boot bi dafa mbër bi mu ñëw kër dañ koo boot mais awul côté bi ku baax yaa ngi suy de. waaw. ma bëgg mu saf wala. non saf na ba dañuy motal rek. saf na ba waaw dañuy wàññi lu bare yokk lu bare. waaw moo tax ngeen naaje. non dañu wàññi lu bëri yokk lu bëri waaw. moomoo ku wen noonu ñu boot mu ànd ak waa Lansar ànd ak waa këram dégg nga loolu ay tegtal la fii ngay jaar nii ngay def gis nga ni mu jaar gis nga ni jaar toj na nen bi wàcc na ku wen sangi noonu di sotteeku dafa dugg see actif nag dafa njaxlaf boo xoolee mbokk yeeg xarit yeeg coéquipier yeeg yëpp dar nañu ko muy sotteeku di waxtaan ak ñi mu war a waxtaanal ma ngay sotteeku ànd ak waa Lansar ànd ak i mbokkam lamb yëfi mbokk la ma ngay tëj ma ngi koy tëj jàllale si ginnaaw Kwersa ngi noonu di utali géew ga ngir defi débat déebam loolu ay pëftal la lañ koy jox pour mu teg ci tànk yi xam naa waaw lu mën a ñàkk tegaatal ca beneen ba jéggil dem sa yoon waaw waaw guddi guddi barñi loolu lañ bind si yére caatu foora bi cat cat ci loone maa ne da ngeen actif nga tey mooy loolu bisu mag la barki maam sa te daa loo xam dañ koo soxla te dañ koy jël si bu soobee yàlla wala sax yëpp a jugandoo boor si ginnaaw kuwen si la moo tax kii suñu mbër la suñu deret la deret bi daw si moom mooy daw si ñun ah. barki maam bés bu ak conscience jàpp ko daan kii mënul bëre. dégg nga loolu. ana sa xaalis. ça va waa Jalle tuuti rek. Ah. ana Lamine. mi ngi nee toog si plateau bi. mais nag noo may jàngatalee grand combat bi Quench ak Double Moteur. waaw ñaari xale yu am avenir nag lañ quoi franchement muy ñaari xale yu am avenir muy Quench ak Double Moteur boo xoolee ni ñëwee rek nga xam ne ñaari mbër yëpp ñoo bëgg làmb ci xam nga mais nag tey ñoom ñaar yëpp dañuy passé baccalauréat kon xam nga loolu day neex day naqaree prononcé ndax boo dee seet ku mel ni Quench bi fi mujjee dafa am défaite dafa am dafa am match nul Bro Double Moteur ci victoire la génne xam nga kon nag tey lamb yooyu ki jógee ci défaite ak ki jógee ci victoire bu ñu dajee yaakaar naa ne ki jógee ci défaite moo gën a war a bëgg lamb ci tey daal di nga seetaan lamb ju neex quoi. Quench si lan ngeen na lan loxo waa Ndakaaru ak waa fi mu dëkk yebee parce que bi mooy premier grand combat am. kan la Quench. waa Quench bi mooy premier combat am tey boo gisee lim indi nga xam ni aussi tamit suñu ñaar rakk lañ rek dañ leen ñaanal yàlla may leen ndam xam nga suñu ñaar rakk lañ suñu doom lañ indi na mbooloo mais double moteur tamit indi na mbooloo a la ko meilleur gagne rek oui. ñaari xale yu toll fii ci làmb indi mbooloo bi lan la ban lan la si làmb war a jàng. waaw li ci war a jàngat mooy dañoo prouvé moo tax seen dëkk ànd ak ñoom buñ prouvé wul woon dañoo prouvé làmb bu ci kenn nax tant que yaa ngi prouvé nit ñi di la jàppale boo prouvé wul nag kenn du la jàppale dañoo prouvé ñoom ñaar. jaajëf waaw merci. bés baa ngi noonu le dimanche 7 novembre ca arène nationale baaba jaw ak waa Thiam production ñoo woote lamb ju mag ci diggante Quench bu Lansar ak double moteur bu rëbës bu leen fàtte benn yoon lamb ji en direct lay doon pay per view en exclusivité ci seen affiche point com même boo nekkul Sénégal nekk ci bitim réew mën ngaa yónni sa xarit wala sa mbokk mu jëndal la sa code 1500 francs rek lay jar daal di la war waar bi ak foo mën a nekk ci àddina di nga ci mën a seetaan sa lamb pour nga jëndal ko ko nag yow ak orange money da ngay def jeez 144 dièse daal di bës 5 def étoile def 346 360 def étoile def 1500 daal di def dièse def ok après nga daal di dugal sa code secret ci noonu dinañu la yónnee benn SMS ak benn lien boo xamante ne ni boo ko bësee moo la yóbbu directement ca làmb bu fekkee ni danga ngaa bëgg jënd ak sa carte bancaire itam yomb na trop da ngay dem ci seen affiche point com nga daal di cliquer ci événement Quench ak double moteur après nga daal di bës connexion par mail ci noonu nga daal di dugg daal di topp instruction yi nga xamante ne ni ñu ngi la koy wax yi